بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديرسي واتجين ci tey jii nga xam ni mooy juróomeelu fan ci shahru ramadan ñu jëlsiwaat ak yéen sunu juróomeelu daje ci keppaaru ramadan muy sous l'ombre du ramadan fas yéene continuer ak yéen la nga xam ne commencé woon nañ ko di ko fàttali konte ak yéen ca la gën la jullit ñi di fàttali konte mooy loo xam ne dafay jëm ci seen ngëm nañ leen ko waxe woon suñ bindu bu jëkk ba mooy doomu aadama bu ngëmam selle mboolem la ca gannaaw ba day yomb ci moom doomu aadama bu ngëmam baaxul mboolem lum jëfal yàlla yàlla soxlaatu ko am na benn tënk bu ñu leen defaloon ci gëm yàlla ana ban jeexital la war a am ci dund doomu aadama bi joxoon leen ci ay misaal jeexital moom amoon ci sahabatul kiram gis nañu gannaaw loolu am na ñaari fan yu leen tegaleel ci suñu soppe yu màgg yooyu malaaka yu tedd yooyu nga xam ni ñi ngi ànd ak ñun di ñu ñaanal fu ñuy mën a toll di ñu jéggulul fu ñu mën a toll loole bokk na ci loo xam ne ni waxtaan nañ ci ay waxtaan doonte ne bunt yooyu yépp comme na ma leen ko waxee rek mooy dañuy seet lañ jàpp ne moo jàppandi ñu wax ko ca waaye lañ ca waroon a wax yépp romb na loolu mbokk julit sa diine loo ko réere réere war ngaa xam ne ponk ngëm yi juróom benni ponk la ba ca jëkk mooy gëm yàlla ba ca tege mooy gëmi malaakaam ba ca te ba ca tege mooy gëm ay téeréem ba ca tege moom mooy gëm ay yonentam ba ca tege mooy gëm ay dogalam ba ca tege mooy gëm la nga xam ne mooy yowmal qiyaama muy loolu kon am na junj buñ jot a junj ci yéen ci jullit ak ngëm yàlla junjaat nañ ci yéen ci jullit ak gëm ay malaakaam tey nag ñi ngi war a delsi ak yéen ci ñetteelu ponk ngëm bi ca mooy jullit ak la nga xam ne moom mooy téere borom bi ala kulli xaal mbokk téere borom bi nañ xam ni dafa am ñaari façon benn façon bu njëkk bi mooy téere yi yàlla wàcce woon jiitu alquran loolu ñun dañuy gëm ni yàlla wàcce woon na ay téere jiitu alquran bokk na ca nee na joxoon na ibrahim téere joxoon na daawuda téere muy zabuur joxoon na muusa téere muy tawraat joxoon na isa téere muy injil ak yeneen téere yu dul yooyu ñun dañuy gëm ni téere yooyu wàccoon na comme ni ñuy gëmee ibrahim yonent la woon muusa yonent la woon daawuda yonent la woon waaye nag loolee foofu la ñuy yem ak téere yooyee ñun la nga xam ne moom la ñuy topp mooy téere bi yàlla wàcc ci ñun alquranul karim nga xam ni am na lu leen junjoon ci ngëneel yu mag yi nekk ci alquran boobee dañ ko war a gëm ku ko gëmul doo julit dañoo war di ko jàng lu bari dañoo war di ko wattu ñu waxoon it ne dënn bu mu nekk xamal ni ak yonenti dajale sa biir xol ñu waxit ne xarf boo jàng am nga fukki tuyaaba ñu waxit ne ki gën ci nit ñi mooy ka koy jàng di ko jàngale ñu waxoo nit ni kër guñ koy jàng seytaan ya daw fa malaaka ya dunde ko ñuy waxit ne yowmal qiyaama bokk na ci loo xam ne dana taxaw ci kanamu borom bi ñaan yàlla ba ramm la waxoo nit daraja yi muy yëkkati ci yow ci biir aljanna na am mbokk jullit amma suñu waxtaan ak yéen tey mi ngi nar a jëm ci li ñuy tuddee تأثير القرآن الكريم على على القلوب والنفوس والأرواح li nga xam ne mooy tasirul quranul karim jeexital bi alxuraan di am ci xol yi ak bakkan yi loolee mbokk nag mooy la julit ñi ëpp manki tey doonte ne boo demee alxuraan fees na bibliothèque yi fees na ca la nga xam ne mooy jataay yi kaset yaa ngi jàng guddi ak bëccëg portable boo dem alxuraan nga cay jolli waaye nag ndax am na jeexital loolee mbokk mooy la nga xam ni mooy laaj bi jullit bu nekk war di laaj boppam mbokk alquranul karim mooy waxi suñu boroom jalla wa ala suñu boroom ba màgg booba nga xam ne moo ñu bind moo bind asamaan yeeg suuf moo ñuy taxawe moom moo ñu terale jël ay kàddoom wàcce ko ci ñun ñu koy jël di ko déglu tey jii da ngay gis nit ñi am na ci koo xam ne fonk na moroomu doomu aadamaam bu mu tuddee sëriñ ba ba toogee ci jataay ñu ne suñ diw nee na ab dënnam daal di rëcc ñenn ñi dem bay tuur rangoon waaye mbokk loolu nañu xam ne la ka yeyoo woon dey mooy mbooli mi jullit heure boo xamee ne nii ñoo ngi dégg la nga xam ne kàddug borom bi subhanahu wa taala mbokk nañu dellu suñu borom lim ñuy nettali ci ahlul kitaab ña nga xamee ne dañ dun dund diine avant alxuraan di ñëw ca seen xol ak leer nekk ca bañ leen jàngalee alquran ana naka lañ jëfe nañ dellu ca suratul maida nga dellu ca aaya 83 ba yaa ngi dégg suñu borom di wax naan وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين neena la nga xam ne mooy labbe yi ak prêtre yi nga xam ne ñoom yàlla rek ca lañ jublu woon doon jaamu yàlla buñ leen jàngalee alquran da ngay daal di gis seen rangoon yi commencé di tuuru ca la nga xam ne xamoon nañ ko ci seeni téere yu jëkk ya ne yàlla dana mas a wàcc mujjeelu téere ci mujjeelu yonent ñu ne ay yàlla ñun dey gëm nañu yàlla boole ñu ci ñiy seede ne yow lii day say sa say wax la yi nga wàccee mu nekk la nga xam ne nii mooy texeel àdduna ak alaxira loolu mbokk gis nañu suñu borom yàlla bi mu wàccee alquran ci yéeféer yi yéeféer yooyee am ci ñu bari ñoo xam ni dañ am na ñu ko gëm ñu ëpp lañ koy wetti waaye suñu borom yàlla lan la wax suñu borom mu yàlla mu ne qul aminu bihi aw laa tu'minu bu leen neexee gëm leen bu leen neexee bu leen gëm inna lazina utul ilma min qablihi ña nga xam ne jotoon nañ xam-xam bu sell lu jiitu ñuy wàcc alquran ida yutla alayhim yaxiruuna lil azqaani sujjada suñuy jàng ci ñoom day dañuy rot ca seen sikkim ya di sujud wa yaquluuna subhaana rabbina ñu naan ewaay sell ñeel na suñu boroom in kaana wa'du rabbina la mafuula nekk na day dig bi suñu boroom di digee doon lu ñuy jëf lu waral loolu mooy yàlla digge woon ca lemmiñu isa bnu maryam ne am na yonent bu ñëw aaxiru zaman bu yàlla jël ak kàddoom def ci lemmiñam loole diire na lu jege juróom benn siècle waaye teewul yàlla mu ko feeñal loolu ñu ko daan dégg ci seeni maam seeni maam di ko donnante ci téere yi ñu yàlla wërsëgal ñu fekki ko nag dañuy daan sujjuut toroxlu di jooy borom bi ne wa yaxiruuna lil azqaani yabkuun wa yaziiduhum xushuu'a mu ne dañ daan sujuud nekk di jooy biñ déggee alquran loolee dollu leen gën a toroxlul yàlla gën a ragal yàlla gën a wammatul yàlla mbokk misaal boobu yàlla nga koy joxe ci ñoo xam ne ci beneen diine lañ nekkoon avant yàlla subhanahu wa taala di leen baaxe ba ñu dégg la nga xam ne nii moom mooy kàddug borom boobee jalla wa ala mbokk jullit bépp xol boo xam ne sell na ak leer ma nga ca boo xam ne nii dégg na aayey borom bi mënul moos dëkk di jàng alquran ca doo ko gis mukk mu jooy ngir alquran di loo xam ne manqué nañu lool waaye nañu xool delluwaat ca génération yu jëkk ya génération yi nga xam ne xamuñu woon luy portable xamuñu woon luy télévision xamuñu woon luy mass média seen contact mi ngi nekkoon ak jaww ji borom bi bind seen contact mi ngi nekkoon ak kaddu borom bi kaa ñu xool lan la borom bi wax borom bi subhanahu wa taala boo delloo ca suratu maryam ca aaya juróom fukk baak juróom ñett borom bi mu ne ulaika allazina an'ama allahu alayhim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سنبرم يالا مني كايما وخلين ني يالا خيول جيمي تي نيوم ñu bokk ca yenent ya nekkoon ci sëti aadama ya ak ña àndoon ak yonent yàlla nuux ca gaal ga ak sëti ibrahima ya ak sëti yonent yàlla yanquuba ya ñooñu nga xam ne man yàlla maa leen tànnoon jubal leen heure buñ leen di jàngal aayay borom yërmaande ji dañuy rot di sujjuud ànd ak jooy mbokk loolu mooy la yàlla tegge ñi mu nga xam ne nee na tànn na leen jubal na leen loolu it mbokk julit heure boo dëkkee di dégg alxuraan di jàng alxuraan ca ay rangooñ musul génn sa gémmiñ sa bët yi ngir alxuraan xamal ne ñaar am na benn sa xol bi dundul wala boog sa déggin des na loolu ñu bàyyi ci xol xel bu baax ku nekk ci ñun war caa xoolaat boppam wala xoolaatit lan moo dox sama digganteeg ba caf ko ak alxuraan gi yàlla teggee ña nga xam ne ñoom la tànn fa muy yégg ci ñoom man alxuraan yéggul loolu ci moo ci man mi ngi noonu mbokk bu ñu dellu si waatee ci suñu boroom ca suuratul anfaal boroom bi subhaanahu wa taala mi ngi ñuy nettali ne innama almuminuuna allazina ida zukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaana wa ala rabbihim yatawakkaluun suñu boroom yàlla mu ne ña nga xam ne ñoo gëm ci seen gëm mat mooy ñoo xam ne fu ñu tudde yàlla seen xol yi daal di yëngu mi ngi noonu seen xol yi daal di fàttaliku seen xol yi toroxlu waaye buñ leen di jàngal aayay borom bi loolee da leen di dolli ngëm mooy ñi nga xam ne duñuy wékk lu dul ci seen borom mbokk alxuraan yi ngi noonu heure boo koy jàng day yokk sa ngëm day yokk sa dogu mu lay wanit ni sori alquran noonu lay wàññi sa ngëm noonu lay wàññi sa ngëm mi ngi noonu ba ngëm nga jeex tàkk loolu di mbir boo xam ni ku nekk ci ñun war na ci bàyyiwaat xel ñëw leen ñu dellu ba tey ci li nga xam ne muy suuratu zumar nga dem ca aaya ñaar fukk ba ak ñett yaa ngi fekk suñu borom jalla wa ala di wax ni allahu nazzala allahu nazzala ahsana alxadis كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سن برم يالا موني man day ma wàcce la gën a rafet ci loo xam ne dañu koy nettali ay mbokk julit xamal ni léegi nga war a gën a ittewoo war a gën koo xam ci xabaari kaw suuf nga la way muy téere borom bi yal na yàlla jéggal suñu mbokk ba El Hadji Fajur Gueye daana wax ni c'est la dernière nouvelle l'ultime dernière nouvelle te jii booy déglu rajo yeeg télévision yeeg journaux yi chaque jour dañuy indi ay xabaar yu bees léegi-léeg am xabaar yu romboon yoo xamee ne nii nit ñi bàyyi woon nañ ko xel waaye am xabaar yu ñëw folli ko masalan feebar bii nga xam ne moo jur may waxtaan ak yéen tey jii weeru koor bi nga xam ne tafsiru quran lañ doon siq déglul un mois ci gannaaw ñaata kaa lañ doon wax Sénégal waaye déglul bisu tey bii ñaata kaa lañ wax kon xabaar yi day soppeeku suñu borom nag mu ne la gën a rafet ci waxtaan gën caa neex gën caa dëggu gën caa wir nga xam ne dara du ko soppi abadan mooy téeréem bii nga xam ne da koo wàcce mu doon loo xam ne nii lu nuroo la da ngay jàngi fii dara jàng lu mel na moom mu nekk ay contraire nekk luy complétente suñu borom di ko baamu suñu borom nee na dana ci raf di ci yëngu deru ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom buñ jàngee dégg aaya borom bi rek day jeexital ci seen der yi borom bi nee na gannaaw ba seen xol ya daa di nooy nangul yàlla taliinu julubuhum wa qulubuhum ila zikrillah ñu daal di nangul yàlla xol ya comprendre diggal nangoo fas yéene jëfe borom bi nag nee ni lii mooy njubug yàlla moo cay jubal ku ko neex ku yàlla réeral kenn mënu koo jubal looloo tax mbokk ñu war a sax di ñaan yàlla jubal ñi ci alquran xamloo ñu ko bëggloo ñu ko déggloo ñu ko toppaloo ñu ko loolu yàlla nee na moo koy jagleel ku ko neex yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca jaamam ya nga xam ne da leen koo jagleel mbokk julit suñu borom mi ñu bind suñu borom mi nga xam ne moo ñu gën a xam mi ngi ñuy ñaax ci suratul xadid ca aaya fukk baak juróom benn borom bi ne alam yaani lillazina amanu an taxshaa qulubuhum li zikri llah wa ma nazala min alxaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون suñu borom mën a waaw ndax yegg seegul ci ñi nga xam ne dañoo gëm bu ñu déggee alquran seen xol ya toroxlu muy loolu nga xam ne yàlla ko wàcce ci dëgg ñu bañ a mel ne ñi leen fi jiitu woon di yahudi ak nasaraan yi bañ demee ba yàgg téere borom bi dañ koo soofantal seen xol ya mujj wow la ëpp ci ñoom nag wëlbati ko nekk ay kaccoor ca mbokk mi ngi noonu alxuraan ngay gëm mu dundal sa xol dox sa digganteeg lépp lu yàlla xaraamal amma boo demee ba alxuraan joojee nga won ko gannaaw wala boog yaa ngi koy jàng njàngin boo xam ne ci nopp ak làmmiñ kese la yem lan la lay yóbbu mooy day màbb mboole mi baaraas yi doxoon sa diggante ko kàccoorte ak ndëng ak moy moo tax suñu borom nee na la ëppoon ci ñoom dañoo doon ay faasiq ngal la way kon yéen jullit ñi bu leen mel noonu ay kon jël leen tiirab yàlla bi dee leen ko settantal dee leen ci dogu ngir jëfe ko ngir yee seen xol bañ a mel ne xol yi la nga xam ne moom mooy ahlul kitaab mbokk jullit suñu boroom dafa yónni woon suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam wàcce ci moom alquran mu war ñu koo jàngal war ñoo jàngal naka la ñu war a comporté woo ak alquran nañu dellu ci abdullah ibnu umru radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis toog na jàng ibrahima alayhi salaam wax jam wax rabbi innahunna adlalna kasiran min annas faman tabi'ani fa innahu minni mooy ibrahima ba muy ñaanal njabootam yàlla yan nag ma musal maag sama njaboot ñuy topp ay xërëm xërëm yooyu nga xam ne dañoo réeral li ëpp ci nit ñi gannaaw ba mu jàng aaya bi isa bnu maryam sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan yàlla in tuazibuhum fa innahum ibaduk wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim ay yàlla say jaam day su dee ne yaa leen di mbugal ñoom say jaam lañu am nga ci sañ-sañ soo leen jéggale it jéggaloo leen ci ñàkk pexe yow yaay ki not lépp yaay ki xereñe kon yàlla mi ngi noonu lii bi nga xamee ne yonent bi jàng na aaya yooyee mu yëkkati loxoom daa dina allahuma ummati allahuma ummati daa di jooy jooy yu metti ca la suñu borom yàlla yónni jibril alayhi salaam daa dina ko laajal ma muhammad lu muy jooy jibril ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw looy jooy mu ne a ay jibril alayhi salaam man day sama càgganteeg um xeet bi rek laay jooy di ñaan yàlla subhanahu wa taala bañ leen a doon ñu ñu muy mbugal bi loolu amee suñu borom yàlla waxaateeg jibril na ko dellul ci jibril dellul ci muhammad ne ko danaa ko bégal ci xeetam duma ko ci won mukk loo xam ne lu koy naqari la loolee mbokk xeet yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam doon ñaanal mooy ñi gëmoon laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy gëm ne yàlla rek lañu war a jaamu muhammad moom mooy seen yonent seen royukaay daawuñu gëstu jëm ci sëñ caam wala jëm mbeng wala keneen muhammad rasulullah moom lañuy gëmoon ñooñu ñooy umma bi yonent bi doon ñaanal ñooñu nag borom bi subhanahu wa taala nee na dana ko ci bégal yowm alqiyama wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda moo dina ni danaa la bégal ci sa xeet yonent bi alayhi salatu wasalaam ni du ma kontaan yowm alqiyama lu dul ni képp koo xam ne sama xeet nga bokkoon am nga lu toll ni misqaala zarra lu toll ne pënd bi gën a néew ci poussière nga am ko ci sa ngëm yàlla lu dul yàlla génnale biir safara mbokk yonent boobu yàlla nañ ko yàlla fayal waaye lañ ca jublu mooy yërmaane gi mu am ci xeetam ak jàng gi mu jàng kàddug borom bi loolee tax mu jooy ay jooy ba yàlla yónnee ko jibril alayhi salaatu wassalaam mbokk gis nañu ne li nga xamee ni nii mooy jataay bu mel noonu kii di abi zarril gifaari it nettali na ko ci xadis boo xam ne nii cheikh albani nee na xadis bu wér la am na benn guddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu jullee gee ba pare gannaaw ba mu am fu mu làqu di naafile am lenn ci saxaaba yu yoom it di ko déglu yonent bi alayhi salaam bi mu taxawee ana lan la doon jàng ba fajar jot in tuazibuhum fa innahum ibaaduk wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizu al xakim ay yàlla xeet baa ngi nii de soo leen bëggalee say jaam lañu am nga ci sañ-sañ soo leen baalee am nga kattan ci baal leen comme ni nga amee kattan ci mbëggal leen bi nga xamee ne nii loolu am na gaa yi xëy na ko ay yow mi yàlla yónni ñun dey gis nañu yaa ngi wax wax joo xamee ne nii bu doon kenn ci ñun moo ko def kon dañ ko ayibal ndax yow benn aaya dong lañ dégg nga koy répété mu ne waaw sama borom yàlla subhanahu wa taala laa doon ñaan yàlla bu mu faagaagal sama xeet bi ca na nga xamee ni noonu la faagaagale woon xeet yu jëkk ya loole yàlla subhanahu wa taala ah may na ma loolu gannaaw ba it ñaan naa ko yàlla bu mu jël ay noonu lislaam ñuy ñëw di dal ci suñu kaw ba nat ñu complètement mu ne may na ma loolu gannaaw bi ñaan naa ko yàlla bu sama xeet bi teqali ko waaye loolu moom yàlla mayuma ko kon fokk xeet bi dina teqali ko loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon taxawee téere borom bi ndax xam ne ne amul lenn lu gën a gaaw gën koo jokkale ak borom bi lu dul la nga xam ne moo jóge ci moom moo tax mu jël benn aaya di ko répété guddi gi yépp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk julli di gis nañu ne rasul sallallahu alayhi wa sallam noonu mu daan génnee ca làmmiñ bu tedd ba kaddu borom bi loolu di am jeexital ci moom noo nit la ko daan bëgg dégloo ci lenn ci ay saxaabaam benn bis xëy nañu suba mu dajeeg abu muusa al ashari ne ko cey abu muusa man day maa romb sa kër bii dégg ngay naafila waaye cey waroon nga maa gis ni ma tooge di la déglu ay waay njàng mi nim jeexite la ci man daa dina saxaaba yi kii day yàlla may na ko benn buum ci buum yi mayoon daawuda alayhi salaatu wassalaam yonent ci yàlla daawuda yàlla da ko mayoon juróom ñaar fukki baat baat bu mu yëkkati rek dàq moroom ba mu ne kii yàlla may na ko ci buum yooyee loolee kon ngeen gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu mu seeda loolu waaye beneen kii abdullah ibn mas'ud dañoo toog ci jataay ba mujj yonent bi na ko ay abdullah jógal jàngal ma alquran ma ne ko ah yi mu yàlla yónni yow ci yow la yàlla wàcce alquran man nan naa la koy jàngale mu ne ko dama koy bëgg dégg ci keneen abdullah ibn mas'ud daa di ubbi suratu nisa di jàng di jàng di jàng ba yëg si ca aaya ñiin fukkil baak benn fi muy waxee ne fa kayfa ida jina min kulli ummatin bi shahid wa jina bika ala haulai shahida naka ngay def yowm alqiyaama bu dee dañoo indil bépp xeet aji seede bay nar a seede ne yàlla yónni woon ne ci ñoom yonent wàcce ci ñoom ay kaddu yow ñu indi la nga war a seede sa xeet bi nee na yonent bi alayhi salaam mënatul téye boppam daa di ne abdullah amsik amsik doy na doy na doy na nee na abdullah ibnu masud nee na bi ma gëstoo maa ngi gis bëtam yaa ngi turrangooñ sallallahu alayhi wa sallam ca lu tax yonent bi ne ko doy na doy na mooy aaya ba ca topp borom bi day wax ne bisu keroog day ñi nga xam ne dañoo mooyoon yonent yàlla doon nañ bëgg yàlla maasale suuf ci seen kaw ñu nekk comme nañu def bàyyi ma yowmal qiyaama maase suuf loolu nag yërmaande gi mu am ci xeet bi moo tax yonent bi attanatul alquran ci mu ne abdullah doy na doy na doy na mbokk loolu dañuy jàngal ba tey rasul sallallahu alayhi wa sallam la nga xamee ne nii moom mooy a misaal ba mu ñuy woon ci jullit ana lan mooy la nga xam ne nii mooy jeexital bi téere bi yàlla bi war a am ci moom ñu delluwaat ci ki nga xam ne moo ko gën a xam mbokk ki gënoon a xam suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam mooy ay soxnaam waaye rawatina yaay Aïcha yaay Aïcha mi nga xam ni lim nekk ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ah ci jamono bi mu nekkee Madina amul kenn ku nekkoon ak moom soxnaam yépp benn gudd lañu amoon moom yaay sawda may ko guddoon muy ñaari guddi alquran musul wàcc ci kër yonent bi alayhi salaam lu dul ci néeg Aïcha la yonent bi nekk mi ngi noonu jibril musu koo fekk benn néeg lu dul néeg Aïcha radiyallahu anha lu tax mooy mboolem soxna yonent yi mas nañoo fanaan ak beneen góor sauf Aïcha radiyallahu anha moom rek moo musul fanaan ak beneen góor budul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha moomee moo ñuy nettali nee na bis tëdd nañu ba mujj yonent bi alayhi salaam ne ko may ma ma jóg julli daal di jóg commencé ma gis ko mi ngi taxaw di jooy mi ngi rukkoo di jooy mi ngi sujjuut di jooy baba Bilal ñëw ne ko assalaat ya rasulullah nee na mu daal di siggi bi loole amee ñu laaj ko waaw yow mi yàlla yoo ñu li xew tey xanaa dangaa fàtte ne yàlla baal na la say bàkkaar yépp li nga mas a def ak li nga nar a def ba baa ngay dajeeg moom yonent bi tontu leen na leen afala akuna abdan shakura ama ndax du ma doon kuy sant yàlla gannaaw ba ma yàlla baale ndax du ma bi ma yàlla defelee lu mu defalul kenn ndax duma ko woon toroxlu ak wommatu goo xam ne kenn defalul ko ko akay sallallahu alayhi wa sallam ca la teg nag ne yàlla daa wàcc ci guddik tey gi ci man ay aaya yoo xamee ne nii ay waay ak perte koo xamee ne nii mi ngi koy jàng ca du ca du ko settantal mbokk aaya yooyu mooy lan mooy aaya yi borom bi di wax naan إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب borom bi subhanahu wa taala nee na bokk na ci guddi ak bëccëg ni ñuy wuutante bokk na ci ni yàlla bindee asamaan yi ak suuf ay kawtiif ñeel ñi nga xam ne dañoo doon borom xel yu mag الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ñooñu mooy jaam yi nga xam ne dañuy fàttaliku yàlla ci seen taxawaay bu ñu toogee ñu ngay tudd yàlla bu ñu tëddee ñu ngay tudd yàlla ca làmmiñ ya waaye xol ya moom ma ngay nekk di xalaat ci kaw tiif bi yàlla def ci kaw asamaan yi jant ba weeri wa biddiw yi niir ya picc yee naaw lim def ci kaw suuf géej yi montagne yi dex yi bàyyi ma yi di xalaat naan ay yàlla lii de bindoo ko ci neen ay yaa ngi ñuy won sa kattan dañuy won sa xikma dañuy won sa yërmaande loolee nga xam ne ca lañuy nekk di xalaat loolu tax na ba la ñuy ñaan mooy yàlla yal nañu musal ci sawara ndax yàlla won nañu ay kaawtiif tasaare ko ci asamaan yi ak suuf yuy woñe ne kenn waru koo bokkaaleeg dara képp koo xamee ne nag loolu jëfandikoo ko ba yegg ci sa borom joxoo ko gëddaam ba koy bokkaaleel sawara mooy sa wàccuwaay looloo tax la ñuy jëkk a wax mooy yàlla yal nañu musal ci sawara loolee mbokk la dem ba ba aaya yi di jeex ca aaya yooyu ku nekk ci ñun war koo jéem a wattu ba heure bu yeewoo la muy jëkk a wax mooy aaya yooyu nga xam ne moom moo tëj la nga xamee ne nii moom mooy suuratu ali imran mbokk jullit yi gis nañu suñu trente minutes yi ñu fasante woon ak yéen mi ngi nii yëg si nañ ci waaye nañ leen ko defale woon ca malaaka ya incha allah suñu diggante kërab yàlla bi moom it daañ ko jagleel ñaari fan ci suufu keppaaru ramadan di ñaan yàlla lii ñu jot a wax ak yéen ci doxe liinu ñu jiitu woon téere yi avant alquran ci doxe liinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ne moo ko def suñu royukaay yal na yàlla wërsëgal ñu toroxlu gam ko mayoon wommatu gam ko mayoon màggal téere borom bam ko mayoon yal na yàlla defal ñu ko insha allah bu subaak jàmm ñuy continuer ak yéen ci suñu waxtaan ga lu jiitu loolu yal na yàlla defal ñu afwa wal aafiya mbas mi nekk ci réew mi nekk ci àdduna bi mboole seen yal na yàlla def ko yiw ak jàmm ñeel mboole mi julit képp ku ca faatu yal na yàlla defal la àjjana muy sa wàccuwaay képp ku ca feebar yal na yàlla yëkkati la ci jàmm képp kum ca dalagul yal na yàlla féewale ko ak yow ca yàlla teggil ñu ko ci njéggalam ak yërmandeem ba nit ñi mu tënk ci kër yi teqale leen ak jàkka yi ñépp mu delloo la delloo waat leen gën jaare fa ca delloo innahu ala kulli shay'in qadir wa huwa arhamur rahimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh